bugaan xeese booy am na waykat bu wayoon ne sax nanguwul la koo jox moo tax pour nga am ci ndam dana xaw a jafe ndaxte sa sa yar moo rate bugaan xeese booy am na waykat bu wayoon ne wax ma ku la yar su ma xamoon ku la yar ma dem yaroo ji fa yow way woow doo ko mës a am daa dem doo ko am parce que xamadi ki ci yow dafa ëpp moo waral tubaab naan éducation de base moom nga amul da nga koo manqué daa rate ci yow mhm. waaw ah, maanaam da nga dem a dem ba bant bi dafa dem dem ba wow ñu bëgg koo jubbanti day damm ci ban ko waree jubbanti ci lañ jubbanti ba muy baas bi maanaam sa sa yar ña yar ñoo la yoreel ak yow parce que tu tu tu es impoli ba Bougane tu es impoli te sénégalais bëggul impoli sénégalais bëggul impoli moo tax li ngay wut nii pour nga am ko dana ci yow parce que réewande gi ci yow sénégalais yi bëggunu ko beneen bi lo lépp xeetu réewande la parce que nit même buñ ko yaree su amee alal sax du wan nit ñi mais yow sa alal dan koy jaay nit ñi te sénégalais bëggul loolu loolu lépp ci éducation de base la la la la la la nekk ni ñu la ëppale lool looy jaay ñu ëpp ko ëpp lay étage ëpp lay oto ëpp ba pare ne nemm ànd ak yar ànd ak ko jaay kenn <laughs> sénégalais nag bëggul loolu ngay yor sa alal ba pare di ko jaay ne ma am lii maa moom lii ñun àgg nañ ci foo xamante si nii boo ñu defalee par sax di ko wër di wax ñu bàyyi la ak moom yàlla xam na ko loolu nag daa nekk ci yow moo tax ci moo tax dangaa rate dangaa rate yar bi dafa rate éducation de base moom amul quoi waaw way woowu ñu naan daal bu ma xamul fa nga yaroo ma yaroo ji fa doo ko dégg ndax yow kala yar ku mu yar lor na ko faaw nga wuti ji ay teggin <laughs> moo tax espace politique bi pour nga am ci ndam day xaw a jafe ci yow waaw day xaw a jaf ndax fu koo xam ne jataay boo toog bala nga fay jug ñu xam ne ku réew nga sénégalais yi bëgguñu loolu séné ñi joxe réew mi ñu ci bëree bëri li ñu bëgg nit ku am yar ak nit koo xam ne day am sutura maanaam modeste modeste moom nga defut problème bi lool la loolu nag li ëpp ci réew mi nag loolu dañ ko bëgg ci homme politique ku modeste waaw léegi nag am na ci geneen wàll goo xam ne nii moom boo indee sa xaalis noo mën a mel mën nañ la koo lekkale waaye ñooy dem ci nit ñi nag jaayaat la fa waaye ñooy lekk sa xaalis di la tagg di la def lu ne waaye ñooy demaat ci nit ñi nag xamal leen ni kii ñuy fréquenté moom mi ñuy defal lu ne waaye ku xamadi la nag waaw ku yëg boppam la bis su ngeen ko joxee réew mi da ko joxub yàqkat da ngeen ko jox ku réew da ngeen ko jox ku xamadi 15 jours mënoo koo yor Sénégal 15 jours waaw fépp fu mu posé ab meeru candidat bépp ku ko fal fal nga ko fal nga ko réew fal nga ko xamadi fal nga koo xam ne amul éducation base tippite noonu moo tax sénégalais yi ñu am fulla lañ àgg nañ ci yow naa sax nanguwul la koo jox moo tax pour nga am ci ndam dana xaw a jafe ndaxte sa sa yar moo rate